en tout cas nawet bi am na ah, merci beaucoup <laughs> euh, ci li ci li nga fi indi tey ci cri de cœur et je pense que façon bi nga ko defee également c'est important en tout cas merci beaucoup jërë ngeen jëf ñu jaajëfal ñëpp ñi ñu euh, leen di gërëm bu baax di leen sant di leen jox seen wàccuwaay donc mën ngeen wéy euh, di bokk ak ñun li nga xam ne rek moo di waxtaan wi jaarale ko suñu xarale yu bees yi jàppal ne Feeling Dakar TV la première chaîne people et politique du Sénégal ñu dem ci premier pàcc bi jagleel ko élément baat ci cri yi waxoon hmm. naa nag ñaar nga am droit euh, daal di àddu. ñu jox la hmm. kàddu gi pour euh, peut-être. deux minutes benn moo euh, fi am deux deux la mu may. non non soxna day dem feete. non non dafa gaaw ah, benn bi benn bi dama ciy wax après yow pour dama la ciy interview kii sax mooy wàllum grève wu mairie yi. doy na waar loolu sénégalais yaa ngi ci jooy bu bare bari da ngay dem di wuti kayit ñu ne la maire yi dañoo grève loolu moom yaakaar naa ñun ñëpp war nañ koo jooy quoi parce que bu ñu demee ba Sénégal tollu foofu ngay bëgg a am kayit mu lay të ngay wuti extrait doo ko am ci ay mairie wala affaire yooyu noonu. wala ngay dem di légaliser sa ay papiers doo ko am. Mhm. mu nekk lu doy waar quoi donc loolu ñu ngi ciy lancé appel autorités yi gouvernement bi pour ñu ñu gën a gaaw pour def euh, lijjanti mbir moom problème boobu yàgg na. Hmm. ñu wax lu leer nag problème boobu commencé ci gouvernement bi. depuis Macky Sall yàgg na loolu yàgg naa sax léegi mu def un an. bi problème boobu amee yi dem ci mairie yi di wuti sa papier te muy sa droit ñu naan la dañoo grève ak dugg na fii génn na fii loolu yaakaar naa autorité war nañ ci jël ay saafara yu gaaw gaaw a donc ci lancé appel premier cri de cœur boobu la deuxième bi nag Bamba ci yow mi laa jëm Bamba xam nga ma jëm ci yow Bamba ñun dañuy toog fii à chaque fois di di wax naan les journalistes sa confrères yooyu dañuy dañuy wax des informations justes et vraies que journaliste du par dëgg loolu dëgg. oui ñu yàgg koo kaas. ba ñu si doon ñu si doon wax sax ñenn ñi ay quotidien di leen wax naan du ñu bind dëgg ñi du ñu bind dëgg. mais Bamba bërki démb da ngaa gis lu journal bind du dul dëgg yow nga taxaw di ci laajte question te nga xam ni loolu du dëgg. mooy lan muy journal yoor yoor <coughs> taxaw xëy bind ne lan la autorités yi di xaar pour déchoir Barthélémy Dias fële ca mairie Dakar te yow Bamba xam nga ni loolu mënul nekk. mais question la laaj de. non non il n'a pas posé de question. ay qu'est-ce qu'il a dit. xam question bi kan la ko posé. autorité yi daf moom maanaam dafa affirmer ne. kon ça veut dire que Barthélémy Dias euh, dañ ko war a déchoir fële ca ca ca ca mairie de Dakar kon moom. con confirmé na daa am point d'interrogation waaw non dafa ne lan la autorité yi di xaar pour déchoir Barthélémy Dias loolu c'est clair. Mm-hmm. après mu bind ci suuf indi cent article 135. loolu boobu baaxul. waaw soo ma dugalee ci sa euh, kii bi. Mm. li ngay def ni mu cri de cœur sama ci dugalee man leeral la. waaw bàyyi ma bàyyi ma yàggale ba pare. pour ma dëggal na ne euh, waaw. waaw xaaral ma ñëw après ma jox la. Ah, waaw parce que moom ci suuf xam nga dafa posé question ne lan la gars yi di xaar pour génnee Barthélémy Dias maire de Dakar. parce que parce que dafa bind parce que après ci suuf mu bind article 135 mooy maanaam bu collectivité territoriale mais loolu concerné wul Barthélémy Dias parce que article boobu dafa ne bépp maire bu def crime pour crime génnee ci ca mairie ba dañu waroon nangu sa poste maire mais Barthélémy Dias loolu concerné wu ko Barthélémy Dias il a été il été condamné pour délit il a pas été condamné pour crime li concerné Barthélémy Dias mooy article 51 bu euh, bu règlement intérieur bu assemblée nationale moo concerné Barthélémy Dias boo xamante ni tey suba bu ministre euh, de la justice bindee assemblée nationale pour ñu génnee Barthélémy Dias foofu donc dañ ko fa war a génne kon moo tax ma ne Bamba juróom yow xam nga ni bu baax ni li li journal bi bind amul yow yaa woon boobu man non non nekk fi ma fi woon. man de wéy dinaa émission. dama seetaan Bamba quoi boobu mu koy laaj moog Diouroupé Ndiassé ñoo ko doon ñoo ko doon ñoo ko doon waxtaanee. Mm. donc ma ma bëgg wax ni donc journaliste yi nañuy def juste et vrai parce que tey journaliste waruñu di par parole ba pare dama lay jox information parce que yor-yor boobu dafa amoon convention ak mairie de Dakar convention boobu jeex. waaw ah, moom tamit day tiiree ci ficelle dafa amoon convention ak eh. euh, ak ville de Dakar. léegi convention boobu nag ville de da koo dakkal. waaw ko tamit. non ñoom dañ ne ah man je sais pas. xaw ma lu ci biir man du ma ci xam ku ci kii mais nee daal daggal nañ ko mais bu ñuy wax rek bu fekkee ni tey moom bu tiraillement amee ci yenn boor yi sax bu ñuy même bu ñuy informé dañuy informer juste et ba pare tamit Bamba jaru ko sax loolu day mel ni soxor la sax lan la koy yéene pour ñu déchoir ko nañu xaar ba <laughs> mandaam jeex mais Barthélémy Dias lu ko fa teg mooy bu mandaam jeexee sénégalais ñoo tànnaat ñooy xoolaat kan la ñuy teg ci mairie de Dakar. mais da ngay bàyyi. damay bàyyi nga yegale waaw dama bàyyi nga pare ci jël bi wax ci journal bi maanaam tey moom loolu lan la koy yéene sax doomu aadama un boo xamante ni dañ koo fal teg ko fa muy liggéey nga ne yow lu ñuy xaar pour déchoir ko fa loolu euh, amul sens quoi je pense que ñun tey lu ñu war a yitteel mooy luy liggéey Sénégal ak luy liggéey intérêt peuple bi gouvernement bi dañ ko fay teg pour intérêt peuple bi mairie bi dañ ko fay teg pour bi donc pour man la politique après la politique c'est le travail nañu àndandoo liggéey ngir intérêt peuple bi bu politique jotee nag mm-hmm. incha allah jour élection ku nekk dem dàkkiwaat sa wërsëg ku yàlla fal ñu xam ne yow la yàlla fal ci njekk ak teranga encore une mais bu acharné wu ci benn nit mais Barthélémy Dias dem ba nga xamante ni moom mooy l'absent le plus présent jamono ji moom la ñuy tudd te pourtant buy gars yi faloo ba léegi kenn dégg ko mu pipé moo kenn mosu ko dégg mu wax mais ñu ngi ñu ngi jaawale fii di wax fii naan kii diw lii laa ak diw lee la gis nga Barth bu gorewul woon ba léegi ñu wax ci nag Barth bu gorewul woon fa laa tëjee Barth bu bu gorewul woon Bamba ñu ñëpp seetaan nañ ko bu gorewul woon dugg na ci nguur bu yàgg yàgg ci jamono Abdoulaye Wade lay duggee ci nguur Abdoulaye Wade soxloolu woon ku dul Barthélémy Dias ci biir euh, gouvernement am Macky Sall idem mais musu koo def parce que amoon na gëm-gëmam bi mu moom kon dañ ko nangul li mu moom dañ ko jox cër bi mu moom quoi parce que am na fi cër ci Sénégal te liggéey na ko ok voilà léegi ma ñëwaat ci li nga xam ne rek moom la journal yor yor boobee également bind mooy affaire Ndiaga Diouf six mois après la décision de la Cour suprême mm-hmm. quatre ans les nouvelles les euh, nouvelles autorités mm-hmm. euh, pour décevoir Barth de ses mandats de député et de maire je mm-hmm. pense que foofu laaj la daal di li nga xam ne moo di samp ci loolu également jot na avancé ci par rapport ak lim jàpp ne amee loolee eh, ci loolu la sukkandiku moom il a évoqué l' article euh, du code euh, bi nga xam ne moo di général des collectivités euh, territoriales mu ne lorsque le maire ou tout autre conseiller municipal est condamné pour crime sa révocation est de droit mmh. les maires et adjoints euh, après avoir été attendus ou invité à fournir des explications mmh. euh, sur les faits que leur sont reprochés suspendus euh, par un arrêté du ministère chargé des collectivités territoriales. Ils ne peuvent être révoqués que par décret. L'arrêté de suspension et le décret de révocation doit être motivé. mu ñëwaat ci foofu oui. daf ne. l'article est-ce que bàyyi jox non non non non ma oh, nga après nga ñëw gis nga say kay bàyyi. non non amul loolu. mais comme comme moom moo njëkkoon demandé parole dara ci wax allez-y kon dama waaw. xam nga dafa wax ne sëñ Saliou Gueye li muy def ni wane ne journal bi. non li mu ma sëñ Saliou xam nga yor-yor li mu bind du dëgg. li mu njëkk wax dafa ne lu autorité yi di xaar daal di ne lorsque saa yu yu ñu. oui condamné maire ci crime. Mhm. nangam ak nangam. Mhm. loolu ba tey yor-yor fenn. oui ah déedéet. mais daf ko daf ko takkal ci kaw Barthélémy Dias non non déglu ma phrase fii mu. fi mu taxaw nii non non di nga di nga nee na bu dee crime la moom obligatoire voilà voilà non non c'est clair da ngaa wax ba pare. ce qu'il a dit da ngay bàyyi ma wax. waaw bàyyi ko nag mu wax nag suñu nee saa yu ñu defee nang kii maire nangam condamné ko ci jee wàllu crime yam foofu développé wul ne ne Barth dañ koo condamné ci crime. boo waxee loolu loolu mooy fen. waaw mais lu tax mu ne. waaw non non non ah, déedéet non xam nga nag bind leer na tamit nag. non gis nga dafa ne dafa ne lan la autorité yi di xaar. di lu ñuy xaar. waaw kon ça veut dire que kon kon moom dafa taxé Barth. mën nga see déggee loolu été condamné pour crime. nga euh, élément. gis nga bu ñu bëggee man pour trop. parfois nit wax sax xeeti wax yi nga dóor ci kawam ba pare. nga dem sax ko porté ko plainte ñu dem ngeen taxaw ci euh, baaru euh, juge ngeen taxaw ñu wax bu xoolee ne lii li mu def déjà tomb laaj la def beneen bi ci des dafay ubbi li ñuy wax xos muy virgule. oui lorsque saa yi ñu duutagoo baaraam nga xam ne boo paree woon da ngay def tomb jalo muy point d'exclamation. mooy tomb jalu mais article 135 bi concerné wul Barthélémy kon jaru fa woon bind. yow li ma lay wax nii foofu laay waxee quoi ma lay wax nii waaw. mooy tey yow bu ah. Barth demoon ne sëñ Saliou dafa maa diffamé parce que neen dañ maa condamné ci crime buñ yeggee ba wax ko pare li ñuy xool maanaam yor-yor nekkul ne loolu la bind li Barth wax bu boobaa sew sew boobu laa lay jéem a wax. xam nga yow tamit même yow li nga def nii danga nga xaare waaj lu fait que mu bind li te yow li mu liir ay tubaab la. mais gis nga tubaab virgule. point virgule. point d'exclamation point d'interrogation d'interrogation laay wax. mooy laaj. dafa am lu muy jariñ. saa journal bi daal lenn la bëgg. pour ñu dem waaw kay loolu. Ah. li mu bind. Ah. du li nga wax nii. te pourtant yow àtte nga ko dóor ko. Ah. te bu ñu demoon kanamu tribunal. fala lay romb génn. man ay duñ duñ dem moom ci ay tribunal. man duñu dem ak moom ci ay tribunal. ok léegi. waaw léegi mooy yow. journal bi boo continuer ma xool ba xam ba nëgë ni ci biir. mais léegi journal bi laay tontu ci boppam journal bi. article waaye li mu bind tamit. léegi joxoñul baara baaraam Barth. ne dañ koo condamné ci crime. en tout wax bu fekkee est-ce que xam nga loolu joxuñu bi daal yéeneem mais xel kenn du ci àtte ah, lii la diw xalaat parce que li wax c'est tellement clair parce bu fekkee crime la waaw ah, kon ça veut dire moom xam na bu baax ni non mais il sait très bien ah, ce sont des journalistes attends vous êtes des journalistes am ngeen ay informations yu claires et nettes yow Bamba xam leer na la leer ni Barthélémy Dias n'a pas été n'est pas condamné pour crime yow leer na la bu baax ah d'accord léegi journal bi journal a bi ci manipulation lay dox loolu amul sens gis soxor buy moo amul sens ci mbir ci mim réew mim réew bu ñu falee nit français très profond wolof même ci wolof xam nga ci wolof laa ko indi. mosuñ même ci wolof dama ne wax yi dañoo am sens. xoolal bu leen gaaw a tontu en tout cas Barthélémy Dias est l'absent le plus présent.

dem génne non mënu ko génne gis nga bu nag dama leen di koy wax dama leen ne

waaw léegi c'est bon di dal ci kawam c'est pas normal. ah mais quand même ndax ci moom quoi. Ah. voilà léegi léegi ma continuer. par par rapport à l' article cinquante et un du règlement intérieur. de l' assemblée nationale. mooy le député qui fait l' objet d' une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l' assemblée nationale euh, sur demande du ministère euh, de la justice. léegi monsieur Thioune yow lay jox kàddu gi par rapport ak l' article cent trente cinq du code général des collectivités territoriales ak l' article également du règlement intérieur euh, lan nga ci mën a indil comme comme jàngat sur le camp de Barthélémy Dias waaw xam nga man bu ma liiree euh, journal bi si suba. oui bu ñu ma ci laajee ngoon dama ne euh, le fait que ma bind article 135 amul benn sens. soit su dee da nga bëgg a débat si am na sens mu nekk fa soit da xamul dara ci li ngay wax ñaar soit da nga am de mauvaise foi ngay manipuler ñaar yooyu kese la. ok parce boo xamee ni l' article 135 lu muy wax amul amul sa pertinence amul place fii article 135 dafa wax lu leer certainement ñeneen di dinañ tudd Khalifa Sall il a été il a été il a été révoqué non. Mm. justement xam nga àtte wuñ ko pour crime. mais c'est article 135 boobu waxul pour crime kese mais lu mu lim yëpp ci délit. concerné wu Bassirou Barthélemy Diom kii Barthélemy Diaz. yàlla na wax lim daf ne tout élu local tout élu. mën na nekk conseiller mën na nekk président conseil départemental. mën na nekk maire. condamné pour crime mooy phrase bu njëkk bi. plus tard mu énumérer yeneen yeneen délits yoo xamante ni. soo ko defee ñu condamné définitivement bu defee arrêté. Euh, ministre de collectivités territorial bu ko defee bind président de la république kooku mën a def un décret de révocation tu perds li ñu tuddee sa fonction de maire de la ville ou de la commune. Mais Barthélémy Diaz, il a été condamné pour coup mortel mhm. ou coup blessure ayant occasionné la mort donne une vie sans avoir l'intention de la donner. loolu lañ bind léegi fii coup coup mortel du du crime lu nekkul crime. loo koy loo koy bindee sa journal léegi bu dee euh, li ñu tuddee li ñu ko condamné ci. Euh, six mois mois yooyu noonu. deux ans donc six mois ferme. foofu la loi est claire règlement intérieur de l'Assemblée nationale dafa leer constitution bi dëggal ko donc constitution leeral ko règlement intérieur kii ko dëggal ko il suffit le le juste la justice bindu benn note adressé ko au président de l'Assemblée nationale notifier ko la condamnation définitive d'un de ses collègues qui est bi Diaz bu ko président de l'Assemblée jëlee acte. kii nga xamante mooy baax Barthélémy Dias mën na ñàkk ñu tuddee sa qualité de député qui n'a rien à voir avec lu ñu tuddee so mandat de maire léegi Khalifa Sall lu tax ñu révoqué parce que boo xoolee l'article 135 danaan élu local boobu ñu condamné ko parce que dafa détourné xaalis mm-hmm. détournement de deniers publics mm-hmm. dañ ko tudd ci ay corruption dañ ko dañ ko tudd ci ay conflit d'intérêt ci post bi mu doon gérer et cetera xalifa Sall il a été poursuivi pour détournement de fonds publics non. Uh-huh, uh-huh. loolu moo tax ñu ñu daal di ko def révocation. léegi nag boo bëggee ne pourtant Khalifa condamné nañu ko pour crime pourtant il a été révoqué. mais parce que dans l'article 135 il y a ce qu'on appelle le détournement des deniers publics. ñu ne la bu ñu la condamné pour crime. Uh-huh. condamné la pour détournement de deniers publics et cetera su boobaa dangay ñàkk sa sa qualité sa mandat de de maire de la ville. donc boo bëggee wax article 135 fii. ma résumé ko da nga xamul lan moo lan la article bu wax soit tu es de mauvaise foi soit tu es dans la manipulation ñaari loolu kese la. te dans tous les cas. bu dee ci wàllum yoon. kon Barth mënta ah. ñàkk euh, poste su maire am bi. bu dee bu dee ci dossier bi waaye dossier bi mënu nekk. mais quant à député yi mën na ko ñàkk. sur l'article cinquante boobu moom tey ministre Ousmane Diagne bindoon tey. dimanche lundi mu jot ko. dans la semaine sax bu ko mën na ko ñàkk. ok c'est bon kooku c'est pas un débat. ok c'est bon euh, beneen cri de cœur bi jeex na élément. waaw jeex na. ok man maa am <laughs> bon damay wax euh,